ville bu ñuy wax Kiryat Samona ci suuf Israël la bokk Hezbollah dañ koo daal di cible démb waaye day jural na jafe-jafe lool ville ville boobu day démb ci guddi dund na ay lool ndax daal ay incendie maam ay tàkk-tàkk yu méttee métt moo fa am démb ginnaaw frappe yu Hezbollah depuis ca Liban sud bu Liban fa ñu nekk daal la sànni kon ay missile ak ay drone mu àgg ca ville bi ñu wax Kiryat Samona jur nag ay tàkk-tàkk yu méttee métti comme ni nga ko gisee ci vidéo yi ma dugal léegi vidéo yi ngeen di gis ma dugal loolu lay firndeel waaye itam yëmu ca jur na ay gaañu gaañu bakkan bu moom waxaguñu ko ci waaye nag jur na ay dégâts de lu bokkul ak yàq-yàq yi mu jur am na lu toll ci seize personnes yi ci amee gaañu gaañu ca seize yooyee sept yi ay militaire lañu fukk ak juróom-benn am nañ cee gaañu gaañu kon ci tàkk-tàkk yooyee juróom-ñaar nekk ay militaire loolu buñ sukkandikoo ci benn hôpital bu nekk foofu daal ne na kon jot na tooy ci seize blessés seize blessés mbir mu doy waar mu am armée israélienne sax wax nañ daal ne ñoom ñoo ngi doon jéem a coopérer ak benn division des opérations et commandement nekk foofee ca euh, Kiryat Somona ngir xool naka la ñu fayee lakk-lakk yooyu mbir maa ngi xewee ca nord bu Israël muy ca kiriyaat Somona mu mel ne kon taxawaayu alliés yi fës na rawatina waa Hezbollah waxoon naa leen yaakaar naa war naa mat effort wax leen jamono ji Hizbullah ak Israël xeex dëgg ci la ñu nekk dañuy xeex de ñoom ñaar fi ñu ci xeex dëgg lañu nekk dañuy jokkante ay jumtuwaay de guerre léeg-léeg ku nekk di faat sa morom Hizbullah fi mu ne moom daa gën a taral li nga xam ne kon moo di jàmmaar looy digganteem ak waa Israël ba sax fan yi daan nay lancé benn cagnotte di wax daal képp koo xam ne ah, bëgg nga amoo kattanuk mën a ñoo ànd ñoom ci xeex bi itam yoon am na boo mën a jaar ngir dugal sa addi sol bokk sa nga dugal daal ah, sa participation ngir ñu mën cee jënd ay armes ngir mën a jàmmaar ak lor sa mako dugule am nañu ma laaj naan yan yoon fi ci <laughs> fi ci rew mi am ñu ma laaj yan yoon lañ ko mëna joxe wax deug yàlla nak njort naana loola ca ca ca Liban la mëna la mëna nekké nekkee ndax ñom nañ doola ci Liban dal ñom lancé nañ ben ngir gëna dajale copper jënd ay armu ngir gëna jamar lok wa Israël ñeneen ñi itam di wa ansarullah ginnaw bañu baara baaraay ba ñuy ba baras def baras manam bloqué bahrul ahmar ci dembe dikk bi jafé lol amerique ak Angleterre wooyu di jàmmaarloo ak ñoom te daa mel daal ba léegi mënaguñoo am la ñu bëgg ci ñoom ñoom nag léegi tàmbali nañoo attaqué Israël c'est la première fois porte-parole bu ah, ah, bu kuru euh, mbootaay gii di Ansaarullah ko wax ne bombardé nañu benn ville bu nekk ca Israël am na ville bu nekk ca Israël boo xam ne ñoom ñii daal nañ koy wiise soriwul nag Palestine benn ville bu ñuy wax Ummu Rashras Ummu Rashras ah noonu yaakaar bi ñuy wax Ummu Rashras bo ville nyom day ñom ñi di wa ansarullah c'est la première fois ñu dal di koy euh, viser mi ngi nek sud bu Palestine bokku ci li nga xam mom la wa Israël dal di occuper yëmun ci wax ni opération du dak mukk tank gassa ki jam kon ansarullah jël nañ benen tourner ci guerre bi ta modi kon di fexé bay ag ci territoire yu Israël rawatina yi nga xam ño xaw euh, frontière ak euh, Palestine te ngi nanguko ngir di lok ñom lolu bokku ci développement euh, yu mujjii ci digënté Israël ak Hamas auditeur yi Mouhalim Info amna yeneeni otas yu wat ca Bande Gaza otages yu rewum Israël yo xamné armée bi su ñok ñoo jurna ciow nak ñi seen faatu gi jurna ciow de prisonnier manam ñeenti ci doomi rew Israël yi nga xamné ñi ngi won ci loxay wa Hamas ki yo kaddu armée bu rewum Israël mom day faatu nañu ca bande de Gaza ña nga faatoo ca Khan Yunus fekkoon na itam le première mars ñi nga xam ne ñoo di waa a al-Qassam bi Hamas xamle woon ne toll juróom-ñaari pres juróom-ñaari prisonniers faatu nañu leen ñu ne nag li leen faat moo di bombardement yi réewum Israël ñii faatuwaat itam muy ñeent ñii faatuwaat tamit nee ñu bombardement yi Israël ñoo ko waral ñoom nag waa Israël daal nee ñu nañu faat. ñoom sax ña ngi wax waxi daal waa Hamas ñu leen faat waaye daal ab enquête ubbi ko ci mbir mi ndax kat lii daa jur coow ñeent lañu ñoo xam ne ñett ñi ku ci nekk say at ëpp na juróom-ñett fukki am na ci kook sax fan yii ci ginnaaw rek ak njabootam kenn ki njabootam génn nañ ca Israël doon sàkku askan wa génn ci mbedd mi ngir ñu manifester fexe ba accord yii ñuy waxtaanee wala boog accord yi nga xam ne moom la Amérique wax ñu jëmmal ko moom moomee ñu gisoon ci photo bi mu yoroon kenn ki ñu faatu ñoñe nak kon mom mom togon doon woote ngir bëgg ak njabootam manam dal leen ci mbokk muccu kenn ki ñu sax farna faatu li nak day delu ci waat gëna duggal a dugal ñata Netanyahu ci jafé jafé muy pression bi nga xamne mom lay dund kon japp leen yeneen usine yu tollu ci ñent yo xamne ñu won ci loxe wa Hamas faatu nañu Hamas neñu wa Israël ñu leen faak ci seen bombardement yi comme ni ñu ko defé won le 1er mars faat juroom ñaari prisonniers jamono ji xayma nañ lu wara tollu ci 40 prisonniers 40 la wax yoo xam ne kat nee ñu waa Israël faat nañu leen ca bande de Gaza jaare ki seen ay euh, euh, bombardement ñoom ñi nga xam ne Israël ne ñu récupéré leen moo tax ñuy xeex lu toll ki ñoom juróom lu toll ki ñoom ñeent fukk xayma ne faat nañu jamono itam lu war a la bokk lu ëpp juróom ñett fukk cay otaas ñi ngi ci loxo waa Hamas waaye nag auditeurs yu maalim yëpp ñii faatu ñëpp kenn koo xam ne Israël jot na ci am néewam amul ñii faatu ñëpp Israël mënagul fexe ba jot ki seen ay néew ba léegi seen ay néew mi ngi ci loxoy waa Hamas Hamas neewoon nañu amul kenn ci prisonniers yoo xam ne Israël dina ko récupérer ki ñun ànd muy ànd ak bakkan te fekk daf ñoo neex loolu la ñu waxoon amul kenn ci prisonniers yoo xam ne Israël dina ko récupérer fii ki ñun muy ànd ak bakkan te fekk daf ñoo neex loolu nag xam ba nga ko waxee ba léegi noonu la mbir ma di demee ñi ñi jot a bàyyi ca ci otage yëpp waxtaan moo andi ñu bàyyi leen mooy accord yi amoon fan yëlee ci bi guerre bi amee ay weer gi caaju waaye boobaag léegi accord mënaata gudd am léegi-léegi itam otage yi ngi leen di faat am na toll ci ñeent yu faatuwaat ñoo xam ne ndeysaan juróom ñeent ñi ay mag lañu ëpp lañ juróom ñett fukki at ñett ki ñoom doon wax fan yële jafe-jafe ñu dund ci wàllu wér-gu-yaram kon ñooñee faatu nañu jur na nag coow armée Israël nee na day ubbi ab enquête ngir xam ca dëgg-dëgg lu leen faat ndax armée bee leen faat wala waa Hamas ñu leen faat loolu daal la armée bi wala bokk la kilifa Israël wax ne daañu ko gëstu ci mbir mi. ànd ak lii yëpp auditeurs yi maa limee foofu ñaawteef yi ma ngi wéy ca bande de Gaza ministère de la santé bande de Gaza kon wax na ni occupation bi mooy armée bu réewum Israël amal nañu juróom ñaari ñawtef ñaawteef ca Bandagasa ca ñoo ca juróom ñaari ñawtef yoyé juróom ni 71 personnes moy juróom ñaar fuk ak ben faatu nañ ci 182 blessé témèr ak juróom ñet fuk ak ñaar na ci gañu gañu loolu day mi ngi am ci dernier 24 heures yi wa ministère de la santé Bandagasa la ñu ci dernier ñaar fuk wax tok ñent yi jot nañu ci sen hôpital yi hôpital yi nga ñi ngi fonctionner fo ci foofu ca Bandagasa lu tollu ci lu tollu ci 71 martyr maanaam juróom-ñaar fukk ak benn yu faatu ak téeméer rek juróom-ñett fukk ak ñaar yu amee gaañu gaañu loolu nag yóbbu na limu ñu faatoog ñi gaañu am gaañu gaañu ko ca bande de Gaza mu gën a jéggi dayoo jàpp leen bi ñu tàmbalee guerre beeg li faatu ca bande de na ci trente six mille cinq cent cinquante trente six mille cinq cent cinquante inna lillahi loolu mooy fanweeri junni juróom benn yu toftal juróomi téeméer juróom fukk ñi amee gaañu gaañu toll na ci quatre mille neuf cent cinquante neuf quatre vingt deux mille neuf cent cinquante juróom-ñett fukk junni ak ñaar toftal juróom-ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent loolu kon mooy bilan bi nga xam ne moom la ministère de la santé Bandaga Saa mujjee xamle préteur maalim fa kon lii lenn la cay xabaar ah, nga xam itam dama ko fàtte woon boole ci xabaar yi Hizbullah lu bokkut ak li ñu def ci CREAT Samona démb daal dinañu itam visé directement te fa ñuy wax al abad maanaam véhicule militaire bu nekkoon ci benn sir Israël bu ñuy wax al abad nekk ci frontière sud bu Liban loolu itam waa Hizbullah daal dinañuy diffuser démb benn séance boo xam ne day firndeel opération bi ñu amal muy lu ñeel kon Israël daal jàpp leen ne euh, nekkul ci jàmm de ñu ngi dund jafe-jafe bu taratar euh, ndax seen digganteeg waa Hamas ak seen digganteeg alliés yi nga xam ne dañoo gën a taral seenu jàppale ñeel waa euh, Hamas kon ma nga ko di jëriñoo alimé ñu dugg leen daje ba ci kanam a kanam wala ci kanam kanam ngir xabaar yi ñeel biir réew mi. fi ak guddi wala bu ñu jàppandiwaatee ci xabaar yi ñuy ñuy waat ci Mouhalim